asalaamaaleykum euh, chers internautes amis fidèles ñi ngi leen di jaajëfal bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñi nga xam ni yéen a tàmm di seetaan site internet bi di web info TV dal si leen ak jàmm di bëgg bu baax a baax ñi nga xam ne tey ñoo nekk au niveau national comme au niveau international di bëgg bu baax a baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne tey a chaque fois rek bu ñu tàmbalee di def si suñuy vidéo que ce soit muy direct wala li nga xam ne tey mooy euh, émission ñuy gis à chaque fois rek ngeen di liker di commenter ah di joxe aussi seen ay ñun ak yéen la bàkk bi lenn la dooley jën ndox la waaye dooley site internet bii di web info yéen ñii duñu seetaan la donc may bëgg bu baax a baax a baax nga xam ne tey moo nekk a baax a baax lu xonk li muy princesse à chaque fois rek moom mooy toog fee nii dinu encore une fois boo leen gisee ñu dérapé rek rek xam leen moo nekk fële à côté donc may bëgg baax a baax a baax a baax abala rek mi nga xam ne moom lay àndal à chaque fois si li nga xam ne tey mooy web matinal gars na moon nan la aba mhm. donc ñu bàyyi alors merci beaucoup Jules International mhm. maa ngi kontaan bu baax a baax a baax euh, di jàkkaarloog yow encore mhm. une fois mhm. ci émission bu mag bi nga xamante ni moom mooy web matinal gars yi ñu ngi ñu doon laajte waaye li ko waral ne dañuy dugg suñu ay ruq daal di traité li nga xamante mooy information yi nu mu rafetee ñu daal di koy ñëw daal di koy waxtaan ak gars yi nga xamante ñu ngi seetaan à chaque fois rawatina yéen ñi nga xamante ne yeneen scotché wu ci web info TV donc ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax Uh, uh, di amaat mbégte ak contentement di jàkkaarloog ami fidèle internet yi waaye di profité di nuyu bu baax suñu jigéen mhm. uh, princesse mhm. naa ko tubaab fakala macha allah xooli woo maam mhm. Ndiaye Savon sa teint naturel waaye maa ngi profité bu baax a baax jeu international di nuyu bu baax les sénégalais de la diaspora leen jox seen wàccuwaay di amaan mbégte bu baax di jàkkaarloog ñoom waaye di profité di masawu suñu benn frère di Lamine Faramarine nekk foofee sa France barki démboo Ndiaye la euh, ñàkk ki nga xamante ni mooy waajuram bu góor mhm. di ko masaw bu baax a baax di ko xam ni àdduna moo ni mel mhm. donc demal maa ngi ñëw la waaye tamit ku dem rek dañ koy daal di yeesal daal di koy mhm. ñaanal su ko defee euh, fu mu tëdd yàlla suñu borom daal di ko fay wuyu donc ñu ngi lay delloowaat cër bi nga xamante ni moom nga moom di sa émission bi nga xamante ni moom mooy web matinal man duma si dara waaye lu cooli cooli bari ni nga ma def nii ma daal di taxaw na nga fexe rek na nga indi taxawaayu xar daal di ma koy jox kon jërëjëf <laughs> donc xar meeg yooyu dina ñëw incha allah fu nekk nii moom buum laa yor parce que da nga xam nga buum yu dëgër sax buum yoo xam ne boo si takkee xar moom waaw du dem nga fexe hmm. am fulla non yow taxawee taxawaay baaba baal la yow non fu mu toll nii fu bu sa dara nekk si dara ah fu réew mi toll. taxawaay Baaba Maal day métti si man. waaw toll. d' accord encore donc ma leen di bëgg waat bu baax a baax tout le temps rek dañuy allier li nga xamante ne mooy utile ak agréable gis taxaw lañu jël tey waaw hmm. parce que ay jeunes lañu. Hmm. waaw quoi comme plus de a taxaw ay une heure de temps trois heures de temps. dëgg yàlla xam nga boo nekkee ndaw hmm. foo dafoo si caaxaan dëgg la boo fii la ñuy xamee ndax maa yow kon moo si gën a dëgg d'accord ndax si oom yi la ñuy xam kuy demee wet ak ku du dem wet mbokk yi na ngeen ñu àtte si oom yi nii ñu taxawee la ñuy xam kuy demee wet ak ku du mm. demee wet en tout daal lu ci mënti am tey damay ñëw directement rek ñu daal di dugg si nga xam ne tey mooy victoire Lac Rose bi démb yaa ngi fa woon mm-hmm. donc mu doon victoire boo xam ne tey ñu bëri yéen woon nañ ko ko mm-hmm. face ak ki nga xam ne tey mooy Jackson mm-hmm. bis démb tey euh, daanaka ki nga xam ne tey mooy Lac Rose dafa dekkilaat li nga xam ne tey mooy lamb fii nga xam ne mooy sa Grand Dakar démb yaa ngi fa waaw jërëjëf ñu profité mm-hmm. rek daal di koy félicité. Mm-hmm. di encouragé ki nga xamante ni moom mooy Jackson. Mm-hmm. vraiment day dem defaru jiwaat rek. ndaxte boo nekkee ci arène euh, ba nga gë ba nga bëree léegi gëj ngaa daanu. donc boo daanoo rek du du li nga xamante ni mooy métit mais da ngay dem defaru jiwaat. ndaxte làmb moo ni mel. donc ki ko soxla moom ki ko am moom mooy Lac ndax soxla woon na ko askanu Grand Dakar ñaari tali. bëggoon nañ ko. démb nag mu daal di indi ndam boo xamante ne ndam bu rëy la. xamante nañ si mbégte bu baax a baax donc hmm. dañ koy daal di félicité bu baax a baax moom mi nga hmm. xamante ni moom mooy hmm. euh, Lac Rose waaye di encouragé ki nga xamante ni moom mooy frère am di Pape Ndoye ndaxte lu musta am si làmb faa ñu koy waxtaanee Jules rakk daa bëre samedi mag bëre dimanche rakk perte waa dañ koo daan mag di ñëw daan kon wax dëgg yàlla euh, dañu la dañ koy encouragé bu baax waaye di félicité Pa Abdou Boye dëgg la ndax xam nga mais avant ngay ñëw si félicitation ma nga ko ñëw maa la ko ñëw maanaam dañuy ñëw juste a entre-temps si li nga xamante mooy mm-hmm. combat bi mm-hmm. parce que quoi qu'on puisse dire gis nañ euh, li nga xamante moom la kii di Lac Rose dèjà mm-hmm. bi nga gisee li nga xamante ni état de forme ki nga xamante mooy Lac Rose euh, naka nga jàngatee li nga xamante mooy combat bi ñëw na ni mu war a ñëwee wala combat comme ni ko gars yi waxee da si dal yooyu noonu quoi non non dalu si ñëw na ni mu war a ñëwee xam nga lu tax Euh, ma rebondir un peu dafa mm-hmm. ñëw si ki nga xamante ni moom mooy fils de balle. Mm-hmm. bëreeg moom indi état de forme boo xamante ni ñu ngi naan Lac Rose dikkaat na. Mm-hmm. mu confirmer foofu match nul daal di am. mu ñëw si digganteem ak Jackson. daal di koy confirmer wane ni Lac Rose ma woon dikk na. Hmm. ndaxte dafa ñëw si làmb ji indi tey hmm. conscience tranquille hmm. daal di jàkkaarloog adversaire am euh, euh, daanaka moom sax dirigé wul combat bi Jackson moo dirigé waaye daf ko daal di déglu si xam-xam bi nga xamante ne am na ko mu daal di tey xale bi daal di def action mu daan si action bi si fulla ak fayda waaw koy koo koy Lac donc donc ki nga xam ne tey mooy Lac daanaka démb euh, li nga xam ne tey mooy combat bi donc jaar na yoon comme ni mu war a jaayee yoon mm-hmm. bëree na ak li nga xamante mooy xelam ak consigne donc mu doon mbir moo xam ne tey lu am solo la encore une fois ñu koy féliciter encore une fois mm-hmm. euh, Lac Rose la wax ni moom dafa bokk ci làmb mm-hmm. encore une fois Lac euh, Lac Rose euh, maanaam tey dogal ko dab noonu la demee ndogal day dal ku ne mais daal ñëwaatam dafa am solo mais nag dafa am lu am solo parce que gars yi ba combat bi jeexee dama gis ñuy laaj revanche ki nga xamante mooy Sa Thiès est-ce que teelul waaw du ma ne teel na du ma ne teelul waaye dëkkandoo bu demee ba am doomu ndey day am ci biir te loolu la yàlla dogal Lac Rose wax na ko si biir wax hmm. euh, que ni Sa Thiès moo doomu ndey la waaye fi may visé moom mooy Lac kenn ku ne xam na ni tey buñ demee ba ñun ay doomi Grand Dakar bëgg làmb Lac Rose a tax kon hmm. donc mën nañ wax ni mën na tëb Sa Thiès dem visé ji feneen pourquoi hmm. pas Lac Rose ay doomu ndey lañ waaw doomu ndey lañ nii mais pourquoi pas Lac Rose mënuñu bëri mënuñoo bëri instant bi parce que dëkkandoo lañ sax sa géejawaay mais dëkkandoo yi ñu koy laaj ak ñi nga Euh, am na benn waay bu ma dégg sax mu ne Galant Dakar lépp loo ko lebal di ko ko fay. di ko ko fay loolu dëgg la. bor la de waaye bor bi man bor bi wax dëgg yàlla lebal bi man dama bëgg tey ñu ne la Rose ak ma Sène hmm. waaw parce que tamit ndogal moo ko dab. waaye tey mënoon nañ dégg Lac Rose ak Eumeu Sène daal di jàkkaarloo. Hmm. Eumeu na mën a may chance ki nga xamante ni moom mooy Lac hmm. ko defee ñoom ñaar ñu daal di jàkkaarloo. Hmm. parce que loolu tamit da see da see da see am solo Julien. am na solo am na solo waaw tëjee ko foofu. d' accord donc euh, xam nga bàyyi rek nga remercier Pa Abdou. ma remercier Pa Abdou. mu ngi doon nuyu sax ma ne ko moom tey dafa jël congé. man man man man man man maa ne ci. ah waaw bàyyi bàyyi di jox gars yi naan dama jël day tax gars yi day foog dama dama yor te yoruma yoruma bàyyi di wax gars yi naan ay dama jël conseil jëluma conseil jëluma conseil saa waay ah, ah, nekk di lijjanti ay mbir yoo xam ne tey bëgg am xar bëgg am soble ah bëgg am nee naa leen pomme de terre yooyu yëpp nee naa leen démb mhm. man am naa soble mhm. waaye bëgg soble faaw nga am pomme de terre waaye ku am pomme de terre faaw nga làmb xar hmm? te defe naa ni Eh, tabaski bi. du mu nekk ku si bëgg marinade bu jaar yoon daal. waaw faaw lépp daje. faaw lépp daje. maa la te fu mu nii lépp daje. te boobaa runkum daje lay doon runkum daje lay doon. donc doy na waar mu doon mbir moo <laughs> xam ne tey. mais ñu remercier ko bu baax. Mhm. ndaxte waa Grand Dakar remercier nañ ko bu baax a baax si ni muy jàppalee mbër yi waaye rawatina la grosse. Mhm. ndax démb gis nañ popularité bu ñëw Hmm. Lac Rose ma woon population bi nga xamante hmm. daan support ki nga hmm. xamante ne moom mooy Lac Rose démb ñëpp ñëw nañ Grand Dakar fees dell ñëpp daal di jubilé dina mën nañ lii waaye loobi loolu la te euh, Dakar ne Aba le vrai loolu sama bés a euh, dëggal lamb dina suqaliku fi nga xamante mooy euh, Grand Dakar waaw parce que ni quoi qu'on puisse dire gars yi ñu Dakar Euh, Lac Rose gars yi bu ñu defee link xam nga zumbu dérangé dëggal seen bopp war na mën a doon ay champion jaxas gi te ay champion la maa ngi félicité jaxas mhm. gi di bàyyi fall moom tamit mhm. démb da doon bëre yàlla dogal mu daal di am ndam moom tamit loolu yëpp daal en tout cas ñoom bu ñu dajaloo def cent pour cent NGB mi ñuy mm-hmm. woote wala deux cent pour cent euh, ku dem rek bu doole bi ñëwee fekk si rek daanaka da ngay am ndam yàlla dina la suturaal nga am ndam loolu daal dañ dañ ci lañ ci yokk rek bu baax a baax jl d'accord encore félicitations ah Lac Rose di encourager ki nga xam ne tey mooy Jackson di wax ni euh, àdduna ni mel lamb moo demee nii tey da ngay am suba doo am mm-hmm. donc loolu lu am solo donc tey Abba dañuy ñëw rek si li nga xam ne mooy condamnation ki nga xamante mooy Bah Diakhaté euh, lii nga xamante mooy verdict bi daal dinay tombé ñu daal koy tëj mm-hmm. si trois mois ferme ak amende mm-hmm. euh, si cent mille francs moom ak ki nga xamante mooy Serigne Imam Ndao mm-hmm. donc euh, Cheikh Tidiane Ndao autant pour moi ñoom ñaar ñëpp ku si nekk war na fay cent mille ak li nga xamante tëdd trois mois ferme waa xam naa ni Jules foofu liñ fi liñ si wax moom du bëri. Hmm. waaye l'essentiel yoon boo mbir bu demee si yoon. Hmm. yoon daal di génne li nga xamante ni moom la ñu teg sa kaw. Hmm. ah defe naa ni da ko war a mën a nangu rek. Mm. te fu mu fu mu lu mu méttee moom mooy da nga am ay ay ay kàddu yoo yëkkati. Mm. jëmale ko mm. yow nga daal di jéggalu ñoom ñaar ñëpp daal di ne ñuy jéggalu ne dañoo juum. waaye juum su biir juum nag boo jéggaloo ki nga xamante ni moom nga tooñ. mbir bu demee si loxo yu yoon. yoon day continuer def li ko war. kon nañu jàpp rek. naan ñu de la loi mi ngi noonu nañu jàpp rek du yëfu fayantoo. parce que da ngay dégg des fois yëfu commentaire yoo xamante ñi ne ñii dañuy fayante. alors que du fayante. mbir nit ki dafa am lu mu erreur mm-hmm. erreur boobu nag daal di dem ba si justice kon nag mm-hmm. bu déggoo si justice rek nañuy jàpp ne lu justice teg seen kaw rek nañ ko nangu mm-hmm. doon nañ leen trois mois day tombek euh, tabaski bi du dara ak amende cent mille francs la nga waroon jëndee ah, xaar euh, la nga waroon jëndee xaar fekkee fekkee fekkee fekkee tabaski bi prison xam nga tamit yaa def la la yóbbu prison parce que tout as gor kenn du ko tuumaal tey yow buñ la tuumala buñ la tegee benn tuuma tey jii nii nag du la mm-hmm. du la ne parce que nit nit rek la nga mën a doon am na tuuma yoo xamante ne doo ko doo ko mën a nangu mm-hmm. léegi nag moom moo teg tuuma mm-hmm. donc nag amande nañ ko cent mille francs hmm. la nga waroon jëndee xar rek ngay dem fay amande cent mille francs hmm. su ko defee trois mois yi nag soble chèque pomme ne am na ñoo xam ci commentaire yi euh, ah, yi ko <laughs> ah, cent mille francs yi mu bu mhm. jël na xar bu cent cinquante mille day jël kii rek cent mille yi fay. mais mais mais ba yow. Oh, mhm. yow xanaa yëg euh, déggoo enquête bi. Mhm. enquête bi nee si wéef bi fekk nañ ci dix millions kon kay kooku cent millions du ah. moom du dara ci moom weccat la la ñu fekk. les ah. dix millions yooyu ah. ah. yàlla lu dix millions dix millions te loolu yëguma ko woon sax. Hmm. waaye mi ngi noonu daal Jules mu doon euh, situation boo xam ne tey ki nga xamante mooy l'activiste ki nga xamante mooy Bah Diakhaté ak ki nga xamante mooy Cheikh Tidiane Ndao. donc nag gannaaw bi ni génnee tenir ay mbir yoo xam ne ay kaddu yoo xam ne tey ay kaddu yu day yu la. Euh, ba section de recherche daal leen woolu ñoom nag hmm. euh, fu mu nekk nii nii nii nii nii nii jot na noo jot na leen a daan li nga xamante mooy trois mois hmm. de prison ferme. ak cent mille francs amende yoo xamante ne dañ ko war a fal donc tamit war na servir leçon ñi nga xam ne tey euh, ñoo nekk sur les réseaux di wax ak ak ak ak di diffamer mhm. parce que tamit li nga wax léegi tuuma mhm. tuuma tuuma tuuma tuuma tuuma dafa doy waar encore une fois donc à chaque fois gars yi xam nga da ngay nekk sa seen wax loola neex mais fële section de recherche bu la fa dugalee nga jël galaat nekkaat ci leneen ah li wax nii sax ma ngay figure fa boo xasee taal rek gars yi da euh, yaa ngi fële lépp la ñuy xool lépp la ñuy segg encore une fois te tout en sachant que li nga xamante mooy le président de la république jub jubal jubbanti mhm. la daal di woote en même ak initiative bu rafet bi nga xamante jotoon nañ ko def mhm. euh, semaine bi passé si wàllu set setal yeeg affaire yooyu noonu donc il faut Sénégal ñu gën a xoolaat suñu bopp gën a jubbante su suñu suñu jikko yi mm-hmm. xoolaat li nga xam mooy suñu rëkk-rëkk muy man di yow di keneen keneen ñu daal di defar li nga xam ne mooy suñu Sénégal ndax Sénégal benn bopp la avant wax léegi mm-hmm. set setal bi nga xamante ne son excellence euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye woote na ko mm-hmm. ak ànd seeg premier ministre euh, affaire bu ma si bu ma si seetlu Jules euh, parce que xam nga mois bi da nga daan dégg moytu leen bu leen génn. Mhm. fii baaxul lacrymogène di ñu ne moto yi bu ñu daw. Mhm. mais dimanche boobu est-ce que xam nga ni réew mi ngi doon tàng. Mhm. léegi euh, euh, euh, image bi ñëw sama xel. rapidement keroog dimanche bi xam nga lan la lan la woon. mooy gendarmerie ñoo doon génn di doon lacrymogène. mais dama gis gendarmerie soldats yi génn. di bale. ndeysaan ma ne xoolal xoolal xoolal xoolal àdduna mm-hmm. maanaam dara yàggul mm-hmm. léegi ñu ngi koy nettali. heure bi hmm. ñun ñu doon dund lacrymogène yi di hmm. di daw droite. Hmm. léegi ñun ak militaires yi ñoo doon ànd ñooy ànd. di di di di saafonte di saafonte. c'est très mooy euh, àdduna. te image boobu vraiment dafa rafet jour international. encore une fois euh, di si profité di remercier bu baax euh, président bi ak premier ministre bi si initiative bi nga xamante ni ñu ngi koy jël. defe naa ni loolu tamit da see am solo. te nee na bëgg na chaque mois ñu koy def. nga xamante ni dana nekk si ñun ndax ku hmm. mel ni man xam damaa tilim hmm. may naan sama kaasu café sànni ko si mbedd bi hmm. suñu jikko la ñun ñoo mel noonu waaye bu ñu demee di di di di si góorgóorlu defe naa ni dina mun a dañ si ñun en tout cas daal nouveau tour des sénégalais lañu woote jub jubal jubanti si li nga xam ne mooy cadre su suñu biir xoolaat société bi naka lañu mën a euh, defee góor jàpp si kaw góor ñu tingoomante la ah. moom la président daal di woote mais nag ci kaw loolu avant présidence bi avant ki nga xamante ne mooy. Hmm. Euh, euh, euh, Bassirou di jël nguur geeg leen ak leen hmm. am na yu bëri yoo xam ne jotoon na fi xew Aba. Ah, dafa may dugg nii dafa am solo. Hmm. ki nga xamante ne mooy la ah, centre du peuple wala bala ko sekk waaye na Bassirou. waaye na Bassirou Diomaye Faye. ah donc mu doon mu doon mbir moo xam ne itam dafa indi agitation. si réseaux sociaux yi. Mhm. parce que euh, dafa am ay mbir yoo xam ne tey gars yi jot nañoo jot nañ ko jot nañ ko souligner. Mhm. ñu ne ki nga xam ne tey mooy Wally Ballago Seck. Mhm. ah ba dëkk bi di yëngu ba ni fii boom ay li nga xam ne ay doomu jaam du samay wax nag li gars yi di wax la à travers li nga xam ne tey mooy les réseaux sociaux. donc euh, nee nañu moom fu mu nekk nii nii nii nii nii na bàyyi li muy def. na bàyyi jëmm mu daal di comme que moom bi ñu ko soxlawee gisuñu ko. nga bàyyi kii yooyu nag Waly daf ni. Hmm. nan may président mu liggéey. nañ ko may temps loolu la Waly di woote. Hmm. mais nag ñu bëri yenn patriotes yi neexu leen premier ministre. waaw ànd seeg premier hmm. euh, mooy élément Bart gis nañ ko mu def sorte moom aussi doon relater les jamono bi ñuy boom ak di di di di toroxal ay Sénégal di leen jàpp arbitrairement moom kenn gisu ko woon. déjà nag gisee loolu. waa Jules xam nga tey man. du ma fi taxaw taxawaay bi nga xamante ni moom mooy waali euh, Wally Ballago Seck hmm. parce que wax nga ko léegi nii ba réew mi doon metti carrément hmm. doon metti ñu ngi doon wax Wally Ballago Seck siwul hmm. ñëw saafonte askan bi war a wax li nga xamante ni moom moo ko naqari donc du coup ñu ñëw mhm. gouvernement bu bees daal di ñëwaat mhm. ñu gis Wally ñëw di mhm. woyal ki nga xamante ni moom mooy moom mooy euh, Diomaye Faye ne may lañ ko temps léegi nag sénégalais yi kenn ku ne ak sa gis-gis tey man li may gis kee du ko gis yow li ngay gis kenn kenn du ko gis. Mm. comprendre nga bu baax fi may waxee. Mm. parce que ñoom ñi ngi indi image yi nga xamante ne euh, keroog ba ñuy boom. ñoom ñu ngi koy baar ñu ngi koy ay suñu ay suñu ay frères suñu ay sœurs mm. ñoom ñàkk nañ seen bakkan si manifestation yi. gisuñu waale génn si. wax si loolu nag waale moom moo xam lan moo tax génnul waxu si. loolu waale la concerne mais xam nga avant dañ fi defoon benn émission boo xam ne tey am na jour ba may toog fii man yow ak princesse mm-hmm. may may may relater di wax ni photo bi nga xam ne gisoon nañ ko waali attaché wu ak ki nga xam ne mooy Amadou Ba mm-hmm. war a ko woon def leen ma koy wax lii laa gisoon encore une mm-hmm. jamono ji ñi ngi koy vaar te defe naa ne émission boobu mi ngi ci li nga xam mooy page bi bu ngeen dem seetaan ji ko jamono maa ngi wax di relater pourtant lu nee lan ma ci wax ni ma noo lii ak lii mais man lii laa gisoon parce que xam naa ni nguur gi ni ni nii nii nii fi mu doon jëm xamoon naan si li nga xamante ne mooy loxo Pastef la doon tegu mais nag gars yi gisuñu woon li nga xamante ne maanaam li nga doon alerté mhm. euh, léeg di nga toog di analyser lu soro loo xamante ne ñëwagul mais ñi mhm. lay seetaan duñu comprendre par far mhm. wala pour déemu jege leen ak leneen mais lu ci mënti doon daal gars yi ñu ngi nekk di di di di di rappeler di parce que tamit dañu indiwaale benn vidéo boo xam ne tey ki nga xam ne tey mooy Wally Ballago Seck taxawoon si concert di wax ni euh, woo amadi ba mu ñëw mu ni fan yi dégg naa ay petit con yoo xam ne tey euh, dana may nekk di attaqué mais buñ ma dugalee si coow li dina demee neneen ak ne gars yi vidéo yooyu nañ nekk di commencé génne donc loolu mu doon ay mbir yoo xam ne tey waaw xam nga mën nañ see tuut baaraam li nga wax nii yëpp dëgg la mhm. tey Wally dafa war a tëddee njaaxaanaay parce mhm. que ñun ñi taxaw fi di mhm. wax Vigo mooy le centre du voilà ñun dañoo war a di tëddee njaaxaanaay léegi nag bëgg-bëggam ak yëg-yëgam moom moo tax tey moom moo xam lan moo tax mu dem di soutenir ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba jamono yooyu à l'époque ah, à lañ mën a wax jamono jol noonu donc nag bii moom moom moo def erreur moom moo def erreur. Hmm. parce que moo dem ne fang daj en tant que hmm. artiste. Hmm. dem jàkkaarloog bu baax. ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba ba ñëpp xam. sénégalais ñëpp xam. kii fii la féetewoo. léegi nag bu demee nag ba àdduna dox ba ki nga xamante ni moom mooy ñoom waa Pastef tiir réew mi nag. nga ñëw diir ne di woy ki nga xamante ni mooy son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ne may lañ ko temps. léegi nag c'est normal nag askan bi daal di lay vaal. loolu nag wax dëgg na yaa yàlla li li li naqari askan est-ce que loolu mënu ko woon éviter. non mënu ko non mënu ko mënu ko woon éviter est-ce que mënu woon nii avant. maanaam pas nii nii nii nii maanaam bu toogee njaaxaan moom laa lay wax ni mhm. boobu. waali xamul woon mm-hmm. comprendre woon mm-hmm. wala mu comprendre mm-hmm. wala mu tëy gémmiñam bu see wax moo ko indil tey lii nii ndax tey bu amoon benn expérience boo xamante ne benn lecture de jeu boo xamante ne amoon na ko à l'époque si li nga xamante ne mooy xew si réew mi parce que bu fekkee réew baa ngi taax waali xam na ko manifestation bu amee waale xam na ko bu ñu reyee ay doomi aadama waali xam na ko donc nag yooyu yëpp bu ko dajaloo daal di noppi nag dem soutenir Amadou Ba yàlla dogal ñiy jël réew mi nag moom mooy vaar yi hmm. parce que loolu du samay wax hmm. askan bi ñoom lu leen naqari si Wally hmm. ñoo xool bu baax Wally woy na ki nga xamante ni moom mooy Diomaye Faye moom mi nga xamante ni moo moo mooy moo nekk si bopp réew mi jamono ñu toll nii nag gars yi nag naq dañ koy dañ koy dañ koy fàttali li nga xamante ni jotoon na ko fee def ne ko ah bul woy président yow bàyyi ñu rek ak suñu réew ñu ñu doxal parce que ba muy metti yow taxawoo Wally si si Sénégalais yi la bokk waa si Sénégalais yi la bokk loolu kenn mënu ko see seppi mais Sénégalais yi ñoo am esprit ñun ñoo am esprit boobu hmm. noonu les esprit boobu nag mooy dem ba day collé ci réseaux sociaux bi hmm. moo tax récemment yaa ngi koy gis tantôt yaa ngi koy wax moo tax gars yaa ngi indi euh, vidéo bi nga xamante ni taxawoon na sa Paris hmm. concert boobu Paris la woon taxawoon na foofu daal di wax loolu moom nag moo tax gars yi indiwaat fàttaliwaat ko li nga xamante ne wax na ko léegi nag cool yëpp yi nga xamante ne gars yi ñu ngi koy génnee jour international moom na ab waaw kàddu yi ñuy sànni si moom voilà mais na na na na na nangu ret hmm. xam ni sénégalais dañ koy fàttali ret hmm. parce que tamit damay jàpp ne ne hmm. artiste hmm. da nga war a tëddee njaaxaanaay boo tëddeewul njaaxaanaay hmm. moo la indil erreur yu mel nii parce que bëri na artistes yi fi ne du wàllu dong moo fi ne mais gisoo koo xamante ne tey tafal nañ la étiquette bu mel nii donc waale lañ ko approché parce que pourquoi parce que moom moo nekk ci bopp réew moo nekk si bopp artistes yi tey boo boo ne artistes yi ma ngi dangay cité waale léegi nag am na yoo xamante ne boo ci nekkee da ngay éviter lu ni mel te lii waale da see war a jëlee jàngat. Mm-hmm. une prochaine fois. Mm-hmm. erreur bu mel nii bañ koo dagg. d'accord ndaxte xale yi dañ koo bëgg mag ñi dañ koo bëgg. Mm-hmm. gars yi dañ koy bàyyi xel. en tout cas en tout cas am na yoo mhm. nga koy éviter en tout cas way bi nga xam ne tey way na ko ki nga xamante ne mooy son excellence wala dafa neex dafa may leen ko temps donc donc donc donc bu ñu rek mu daal di liggéey mais li tax euh, jamono dama jàpp ni Wally Ballago Seck mi ngi commencé di nangu mhm. ndax nangu googu noonu dama gis beneen Wally Ballago Seck mhm. buy commencé di wax sur le terrain di soutenir mooy jeune artistes yi su ma nee jeune artistes yi genre dama naan euh, bien vrai que gars yi bu ku leen di wax ay jeunes artistes ñoom ñëpp ay artistes yu mag lan mm-hmm. mais gis nañ ko démb fële nga xamante ne mooy euh, si ki nga xamante ne mooy Bastion mm-hmm. mu daal di koy soutenir mm-hmm. encore une fois ñu gis benn waale boo xam ne tey day répondre li nga xamante ne mooy invitation yi di bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne tey ñoom la seqal langue gi donc loolu aussi doon na mbir moo xam ne tey c'est c'est c'est c'est essentiel pour ñu relater ko en même temps aussi ñu ñëw si waale yu bëri yi tamit foofu aussi man man jamono ji mënatuma distinguer kii waale et kii waale man fu mu nekk nii nii nii nii nii nii personnage yi bëri na ci man mënatuma analyser aba naka nga gisee waaw balaa may ñëw si waale yu bëri mhm. da nga da nga am foo xamante ni foofu nga njëkkee mhm. te man abalev rek foofu daf ma amal solo am solo euh, muy euh, waale bas ma koy saar bu baax fan yi hmm. tànkam dafa bari si si si si hmm. balaa Bass Thioung dafa ñëw si ki nga xamante moom mooy Mia Guissé toj fa hmm. ñëw fa baatere xaalis yi xaalis yu bari euh, Mia daal di koy way lu neex léegi li nga xamante ni gisuñu ko woon si Wally yi ngi koy commencé di ko gis si Wally mooy ñëw di wàcc sur le terrain di dem di fréquenter artistes yi di ñëw di bokk ak ñoom li nga xamante ne moom mooy euh, sur scène bi donc nag foofu na xam waal day day day tàggatoo hmm. dafa bàyyi way hmm. wala bàyyi way dafa hmm. mel ni day mel ni kuy tàggatoo man loolu laa loolu laa sentir waal dafa mel ni day tàggatoo parce que tamit loo xamante ne kenn xamewu ko ci yow da nga tëju woon say événement ngay ne léegi commencé récemment di ñëw si soirée booy waaw tàggatoo mel ni ku bëgg bàyyi way waaw parce que man loolu laa sentir waaye ban ko doon wax la waaw man laa sentir récemment fan yi balaa ko waaw waaw laa sentir dafa mel ni kuy tàggatoo ndaxte yaa ngi si miyaa gisee dem si Bastoun si ëllëgee nag ah, yaa ngi ci keneen ak keneen ak keneen. te hmm. waale daaw ko gis muy ñëw. mais est-ce que amul prise de conscience te xam ne àdduna amul solo. ñi nga xam ne tey dañ fi nekk day artiste. ku si nekk bu la yëgalee war nga mën a dem. yooyu yëpp mën na ne. waaye tamit li may gis tamit moom mooy dafa mel ni kuy tàggatoo man daal mm. loolu laa sentir. Mm. bëgg bàyyi way nekk ci leneen daal. Mm. parce que tamit coow li dafa bëri ci moom xam naa looloo tax muy muy dem di nuyonte di saafante ak artistes yi. Mm-hmm. nga xamante ne ëllëg dinañ ne ah Wally ñëwoon na sama soirée mm-hmm. nangam sangam. Mm-hmm. parce que tamit ma bu ma jógee foofu ma ñëw si Wally bari. voilà Wally bari na. Wally Bambey daal xam naa Wally Thiès. Wally Fouta. Wally Bambey te. Wally Bambey moom jamono toll nii kooku moo nangu bës. Mhm. moo tax mu nangu bës fu mu nekk nii fu mu nii raw na gaa yëpp. Mhm. parce que manière bi nga xamante ne moom la Wally Ballago Seck bu mag. Mhm. di woyee style bi nga xamante ne moom la Wally Ballago sekk di di suy way hmm. sur seen la manière bi nga xamante ne moom lay dégager ci kanamam hmm. moom la Wally Bambay di di di di di di def parce que boo xoolee soirée Bastion bi Wally Bambay bi nu manière bu muy woyee moom la hmm. Wally Seck di woyee kon donc moom fu ñu toll ni nangu na place u yeneen Wally yi nag moom nee na bañ na ko sax nee na moom na waali bu mag dem reposé wu. moom mu diriger li nga xamante ni moom mooy moom mooy. <laughs> moom mooy événement événement waali waali balaa ko sekk yi mais na def na tey nag hmm. waaw na tey parce que tamit euh, yaay waali yaay waali yaay waali hmm. euh, day tax nag bu tax nag nga foog ne yaa fi mën hmm. waaw nag a dem nag bu fekkee da nga bëgg a toppandoo waali demal studio nga gën a liggéey travail nga xamante ne di nga xaw a gën a niru ki nga xamante ne moom mooy waali parce que récemment gis nañ ko mu taseeg waale yow tase nga ak waale looy daw di côté di jooy. ndax émission bi la ban émission. ban émission doo taxaw. boo gisee ki nga bëgg tamit. waaw mais tamit nag xam nga tamit gars yi bàyyi seen yooyu nag gars yi hmm. bàyyi seen yenn soo yi jóg nga ba Bambey ñëw lay daw di cotte di jooy jooy métti yooyu noonu mais taxawal ak moom <laughs> woy euh. nga woy ngeen paasante hmm. loolu moom mooy buzz bi loolu mooy créer li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy bruit bi waaye fu nii nag moom moom waale nag fi ni hmm. rasa nag ñoo xaw a mais kon léegi kon léegi Bambey dootul waale Bambey moom fan fan yi mi ngi góorgóorlu sax mais instant yii Waly moom. Waly Bambey gars yi daa mel dañ ko doublé de. <laughs> Waly Bambey. gars yi gars yi li naan. Waly Bambey fu mu hmm. toll nii daa daa raw ki nga xamante ne moom mooy. <laughs> Bambey. Bambey en tout lay doon. xaw naan foo jaar dugal ko. mais yàlla baax na l' émission tire à sa fin en tout euh, a été un plaisir. parce tamit euh, damay jaaraale foofu rek bëgg bu baax baax ki nga xamante mooy Abibatou Sow. Mhm. ma grande sœur donc di sëy fële nga xamante mooy sa Bambay. Mhm. donc euh, moo koy jaaraal bu baax a baax a baax di ko wax nag seen wàllu Bambay bi fu mu nekk nii nii nii nii nii nii ah téere réew mi en tout cas daal moom dama koy bëgg bu baax a baax di mag bu baax ci man encore une fois Abibatou yal na la yàlla. fay sa xol Aba ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk internet waaw jërëjëfet yi Jules maa ngi kontaanaat bu baax ñu hmm. jàkkaarloo ak yow encore ni euh, tey nag maa taxawloo hmm. waaye ba tey newoo ma euh, la ma la waxoon boo gaaw ki ne may bëgg rek sama caro maa ni nii nii nii su ma hmm. paree nga am loo ma jox si taxawaay bi waaw c'est tamit kilifa laa si réew mi. non après naa am lu ma la jox. Ah? yow nee naa taxawaay baa baabu maa yow bul def dara man maay dem di yëkkati di indi. Ah. fan yii am na am naa am naa si benn DG bu wóor boo xam ne tey. Hmm? waaw mi ngi oh, day waaj a sponsorisé li nga xam ne tey mooy hmm? émission bi. waaw web matinal kon kon kon loolu moom scoop bu ma la jox la quoi. Ah, kon kon kon yow moom sa tabaski. Ah. Bamba Massé dina neex. ah kon yàlla baax na. waaw bu Idi nag moom lay xaw a jéem a lijjanti. kon man maa ngi kontaanaat bu baax ñoom DG. maa ngi kontaanaat bu baax si yow di mm-hmm. tamit lancer direct. Mm-hmm. wala dugal vidéo. Mm-hmm. ngeen scotché wu ñuy seetaan. ñooñu amuñu seen fay. kon donc ñu ngi ñaanal yàlla leen suñu borom defal tawfeex ak ay bu baax a baax. di profité du nuyu waa Gambia people. di nuyu Char di nuyu jox seen wàccuwaay. di profité du nuyu waa États-Unis. di nuyu Char waa Canada. may dem ba Allemagne. di nuyu ay Aïcha jaara fu la ah, neex Aïcha mhm. borom Allemagne mhm. la mhm. bu baax suma jigéen ah, di la bégee bu baax a baax sa rak sa frère di awaale frère maa lay bégee bu baax nuyu waale bu baax suñu jigéen di princesse di kontaan si yow la Soukayna Sow tabaski daaw tabaski ren maa koy nuyu waaw ah, Soukayna jotalu ma ko d'accord léegi gum sama nuyoo Soukeyna dafa hmm. ma amal solo Soukeyna Sow tabaski daaw tabaski daaw ba oh, tabaski ren oh, tabaski ren maa ngi koy nuyu waxal ma ko d'accord voilà sama numéro plateau sama numéro hmm. sama numéro bi joxal ma ko Soukeyna d'accord en tout cas euh, ça a été un plaisir à la vraie donc euh, nii rek lay demee à chaque fois rek euh, li nga xamante ne mooy web matinal encore une fois donc tout le temps rek ñuy daal di euh, yëngatu ci li nga xamante ne maanaam tout ce qui actualité ñu koy daal di relater fi nga xamante ne mooy seen site internet bi di web info TV fa laay jaarale di bëgg baax a baax góor gi góor gi ngir yàlla lii naa la ko daggal envoyé la ko quoi góor gi maa ngi lay cher bu baax a baax depuis Mauritanie donc ma lay bëgg bu baax a baax a baax a baax a baax moom day teel a jóg dem liggéey job door waar encore une mu doon koo xam ne tey maanaam. c'est un ami d'enfance ma koy bëgg bu baax a baax a baax a baax a baax a baax léegi fu mu nekk nii 2000 réglé naan ko ndax jox naa la dédicace bi may bëgg baax a baax yéen ñi nga xam ne a nekk doon seetaan li nga xam ne mooy émission bi di web matinal encore une woy leen di abonné di liker di partager en même temps aussi di joxe seen ay ndax yàgg naa leen wax ne leen bàkk bi lenn rek la doolee ndox la waaye doole site internet bii yéen ñii dinu seetaan la may bëgg bu baax a baax idi dem moom nga xamante ne moo nekk si cadrage bi son et lumière di bëgg baax a baax suñ jigéen suñu xarit ki nga xamante ne mooy princesse encore une fois di leen wax rek ni leen garder sourire et cultiver la joie c'est très important jërë ngeen jëf pour beneen yoon